di nuyu Sénégal Sénégalais yëpp ak sénégalaises yëpp ñi nekk ci biir ak ci bitim réew tey nag ñoo ngi ci dëkk boo xamante ni sénégalais yëpp ñëpp ko bokk ndax li mu représenté muy Rufisque muy Tëngéej euh, kenn ku ci nekk Tëngéej nekk dëkk boo xam melting pot la am cosaan nag am taarix am caada yoo xamante ni ju mucc ayib la waaye li nga xamante ni moom moo ko yàq mooy seetaan gi nga xamante ni seetaan nañ ko ko te tey mu bokk ci patrimoine historique classé UNESCO sax waaye ñu fàtte ko nii bàyyi ko réew mi tamit ñi nga xamante ni ñoom lañ ko dénk nga xamante ni Rufisque mooy la ville au chantier inachevé Rufisque mooy la ville au chantier inachevé liñ fi tàmbali yëpp daanaka dara lu egg teg ci nag leneen li nga xamante ni moom moo ñu indi tey ci barab bi fii ñu taxaw gis ngeen fii ñu taxaw xet gu bon moo ñuy bëgg a rey te xet gu bon googu li muy bon bon am na ñoo xam ñoom ñoo ko dëkkee tous les jours muy canal de l'ouest bi nga xamante njàmbat bu yàgg la boo xamante ni Rufisque am na ko te mënuñoo fexe ba saafaral leen ko loolu nag ñun bu ngeen ñëwaloo suñu ñëwee ci 24 mars 2024 ci li nga xamante mooy grand chantier yi nga ko am canal de l'ouest bi ci lay bokk ba nga xamante ni nit ñi dinañ mën a dëkk ak moom dëkk bu mucc ayib ba du leen lool loolu nag ñu boole ci problème cadre nga xam yëpp am na ko problème mu environnement la dégradation de du cadre de vie de l'environnement ñuy subir li nga xamante ni moom mooy les changements climatiques ku wax jokkul ku wax euh, euh, dëkk yi nga xamante ni yëpp dañoo nekk ci booru géej gi xam nga ne sonn nañ ci li nga xamante ni moom mooy l'avancée de la mer kon euh, loolu moom mooy li nga xamante ni moo tax tey ñu fi bokk ak yéen yooyu di leen wax ne ci suñu chantier yu yi leen di ñaan askanu Rufisque yëpp askanu Tëngéej yëpp ñu jàppale ñu ci li nga xamante ni bëgg nañ ko suñu ko amee dinañ soppi li nga xamante ni moom mooy dundinu askanu Sénégal kenn du ñëw Tëngéej tamit te doo wax wàllu napp wax nañ ci démb fële nga xamante ni moom mooy Ngor Yoof Cambérène euh, ba jëm fi nga xamante ni moom mooy Bargny Tëngéej tamit nekk dëkk boo xam dëkku nappkat la te géej googu ñoom it gisatuñu ko amatuñu ko te loolu tamit bokk na ci engagement yi ñu jël ngir Euh, dakkal li nga xamante ni moom mooy les contrats de pêche engagement bi ñu jël di def inventaire du papillon Sénégal loolu ay liggéey la yoo xam ne dañ ko def ànd ci ak doomu Rufisque ba soppi li nga xamante ni moom mooy Sénégal jërë ngeen jëf.